Donc, euh, venant de sortir de l'audition, M. Ousmane a été placé en position de garde à vue par la sûreté urbaine. Et cela fait à un prétexte qui a été avancé comme quoi il serait l'auteur tout d'abord d'un vol de portable. je ne commande pas cela. Qui peut imaginer M. Ousmane Sonko voler un Mais c'est peut-être le prétexte qui a été trouvé pour l'arrêter. Aujourd'hui, on lui met dessus l'appel à l'insurrection et certainement on essaiera de lui mettre dessus tous les événements qui ont pu se produire dans ce pays depuis les deux dernières années. C'est ce qui motive qu'il soit présentement retenu. Il y a eu un communiqué qui a été fait par M. le procureur de la République à laquelle les avocats ont déjà eu à répondre et nous reviendrons beaucoup plus longtemps sur tous les aspects parce que nous allons également, dans le respect de nos règles, user de notre droit de réponse pour éclairer davantage les Sénégalais par rapport à ce qui se passe, même si quelque part vous-même vous êtes déjà quitter que de ce caractère. je ne saurais le qualifier pur de ce qui est avancé. il va très bien. Il est dans un bon état d'esprit. C'est un homme solide. Donc, euh, sous ce rapport, euh, nous n'avons aucune inquiétude à nous faire. t il passer la nuit Quelqu'un qui est en garde à vue va naturellement rester ici Et euh, je tribunal. crois que je ne sais pas si c'est au tribunal ou si c'est ailleurs. En tout cas, la seule chose que nous disons, c'est que nous l'avons laissé en très bonne santé entre les mains des forces de sécurité et nous espérons le retrouver en très bonne santé. Voilà. ah ci wolof ñu ngi koy mën a gàtteele mooy comme yéen ñëpp ñu ngeen ko déggee tey xam ngeen ni euh, takk yi teg nañu loxo. kii di Ousmane Sonko bañ koy teg loxo nag euh, lay ba ñu jiitaloon mooy ni dafa doon sàcc téléphone portable loolu nag yaakaar naa ne ku toll ni Ousmane Sonko soo nee da doon sàcc téléphone portable yaakaar naa ne du ci sori donc bañ ñëwee fii téye nañ ko maanaam téye boo xam ne mënatul dem ñu ubbi nañu enquête enquête ba nag bañ ko ubbee am na yeneen yuñ ci yokk maanaam mbir yu bari yoo xam ne jotoon na fee xew mel ni dañ koo bëgg a teg ci kawam mooy maanaam euh, nu ma ko mën a gàttale événement yi fi jot am yëpp enquête bi ubbeeku na jeexagul donc fu ñu toll nii ci loolu nañ ci mën a wax gis nañu aussi ki nga xam ni moom la yoon di dénk di toppe am na communiqué bi mu def ñun am nañu sañ-sañ tonc ci loolu yëpp mais comme tey dañu leen bëgg a wax li xew rek euh, suñu dajaloo ñun itam. ci wàccook euh, charte yi nga xam ne moo ñu tënk nañ jàkkaarloog askan bi yëpp wax suñu xalaat ci loolu yëpp wax la ca nekk yëpp wax aussi yem sa nga xam ne nañ fa mën a yem donc euh, loolu daal naa leen ko mënoon tënkal ci gàttal. Ah, loolu am na loo xam ne jarut a parce que Ousmane dafa nekk nit koo xam ne nit ku dëgër la euh, c'est un homme de principe c'est un homme ferme. c'est un homme qui est psychologiquement très fort maanaam eh, li xew ni yëpp dara jaaxalu parce que taxawaay bi mu am moo waral loolu donc loolu amuñu lenn luñ ci xalaat ah, ci wàllu wér gu yaramam tam ngeen jàpp ni mi wér gu yaramam yëpp loolu aussi amuñu dara luñ ciy xalaat ah fan nañ ko bàyyi na incha allah nañ ànd ak ñëpp topp mbir mi. maître question ma la fàtte la ci ci français ñenn ñi ñu ngi wax ni lu fekk ñu teg ko loxo dafay annuler. Euh, beneen euh, kii bi nga xam ne waaw loolu yaakaar naa ni moom mooy li ëpp solo ci li ñu jàpp tey am ngeen fan yi yëpp ñu jël dinaa ko bamtuwaat sax ci tubaay tubaab da ngay dégg nit ñi di wax naan atte euh, nañ ko kañ nañ koy jàpp nit ñi di ko werante nit ñi di ci àddu waaye ci wàllu yoon yoon la mu wax mooy il faut nit ñi xam ni atte bi nga xam ni mooy atte contre Macky du atte dafa nekk àtte boo xam ne dañuy bañ su ab mbir xewee da nga xam ne dañ ko war a topp ci benn diir balaa diir bi jeex ñu am pexe boo xam ne nañ yokk diir ba tax na yoon nee na su fekkente dañ laa àtte contumax suñ la jàppee rek àtte ba yëpp nen na beneen euh, décision bu ci tegi woon itam nen na kon boog ngeen jàpp ñi pour ñun àtte boobu ñu ko àtte woon ci wàllu contumax te loolu bëral nañ ko pour ñun àtte boobu amatul il faut que loolu mu leer donc pour que nul n'en ignore et c'est un aspect qui est extrêmement important vous savez euh, la procédure et la contumence dont beaucoup de personnes parlent et ne maîtrisent pas toujours les arcanes n'a pas pour objectif de poursuivre une infraction elle a pour objectif d'empêcher la prescription de l'action c'est-à-dire l'écoulement du temps au terme duquel si une infraction n'a pas été poursuivie, elle ne pour plus l'être. C'est la raison pour laquelle, dans cette même logique, la loi considère que si la personne qui fait l'objet d'une condamnation par contumace est arrêtée, la condamnation et toutes les décisions qui en sont la suite sont anéanties. Donc pour nous aujourd'hui, avocats de son Sonko, nous considérons que cette décision n'existe plus dans l'arsenal juridique, elle est anéantie la loi. Ça également, c'est extrêmement important que vous puissiez le retenir. donc, en aucun cas, M. Ousmane Sonko ne saurait être retenu du chef de ce jugement. Je vous remercie.